jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na allo allo ah soo amee loxo yi réew noonu de. Eh, buur rek eh. buur. waaye bu boobaa nag kenn xoolal Ousseynou da ngay bàyyi gars yi ku demal ne moom waaw. Eh, buur. exact comprendre waaw exactement. buur géwël. allo allo allo allo allo allo. buur eh buur. buur. allo allo allo allo allo. allo. Seydou baax na. Seydou. gaay baax na. c'est bon. papa ñu bàyyi la nga nuyoo nuyu supporters yi ak ñi nga xamante ni lay bëggee ñu fekk la fii sa entraînement fi nga nekk di fi bay sa war ñu bàyyi la nuyu supporters yi nuyu képp koo xamante ñu ngi seen seen internet yi. waaw salaamaaleykum rahmatullah ñu ngi nuyu ku nekk si tur sant di nuyu mbokk internet di nuyu doomu dëkk bi di nuyu yéen ñi fi daje ñëpp monde presse bi yëpp di nuyu aussi ku déplacé wu ñoo taxaw fi ñu lay nuyu di la jëfal waa. mais papa la ngay wàcc yow sa diggante ak Siteu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 gis na nañu keroog nga nga def signature ak ak ki xamante ni mooy Siteu nga wàcc si yàlla da nga koy daal papa fan nga ko teg. waaw loolu après bëri na polémique quoi ndax ñu bari woonoon ma di ma di ci wax quoi mais ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla woolu ku dul yàlla yaakaaruñu aussi ku dul yàlla bu ñu bu bu ñu mayee yàlla la ñu gëm suñu yàlla xañee aussi te keroog lañu ko gën a wóolu keroog lañu ko gën a gëm. li wax nag waxuñu ko woon ngir dunoo wóolu nangam wala nangam lépp dañ ko teg rek yàlla suñu borom yàlla suñu borom day fay coono fayul leneen lu dul ku liggéey mu fay te yaakaar liggéey nañ yaakaar yoo xamante ni bur bi yàlla dañu defal sutura waaw di rek am na moo xam ne euh, nit ñi nag ni ñu ko gisee bokkul maa ngi jégalu képp koo xam ne bokkuñu gis-gis ma yow ci loolu maa ngi jégalu ñëpp di xam ne rek moom ay julli lañu amuñu ku dul yàlla bur bi xam moom lañ wóolu moom lañ yaakaar moom si moom lañ tënku loolu rek moo tax ma wàqeelu si moom te am yaakaar rek daf may defal sutura waaw waaw papa mbër ni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 Siteu dafa prouvé ba egg fu war a egg war a bëri ñu muy bëreel Siteu dafa prouvé ba war a bëri ñu muy bëreel fu mu egg si nii dafa liggéey moo ko indi amul leen lu indi bu ma bëriwoon troisième mu bëri euh, am ñoo xamante ni dugaloon ko fekk ngi si kaw loolu amul sens li am sens mooy liggéey na liggéey naa ñu liggéey ba tey bokk suñu ay combat bokk ay combat yu mag lay nekk waaw loolu sant yàlla la quoi waaw ñu gis la nga ne ko euh, gën gën naa la ñeme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 képp ku ñu làmb booleel bu duggee si géej ñu def fulla ak fayda si moom mais bon di wax rek li ñu gis moom lan gis rek ñu wax ko après fini te am na un mois pour mën a préparer amul leneen amul leneen waaw gis ne li war a nekk moom carrément nekku si ah mi ngi liggéey ah mi ngi liggéey ah, loolu daal laa ci a wax mi ngi ay coach mi ngi liggéey mhm. waaw am laaj keneen yaat ma papa lan ngay wax say supporters yi ñu ngi lay xaar boobu léegi ñu waaw ñu ngi jaajëfal sama supporters yëpp dalal seen xel bu baax a baax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 alhamdulilah non non du taay du taay su du taay sama combat Ama Baldé surpoids daan na ma sama combat la déggee de surpoids ak confiance bu daan ma mais du ay problème mu taay surpoids la bële bële confiance ak surpoids aussi waaw. ku li Modou ndax tey Modou Lo ku ne xam ne ni nekk si ginnaaw sës ci yow ku ne xam ne ni fu mu taxaw daan laa bëgg nangam ak nangam. waaw ñoom mbokk sax dafa dox seen diggante. mbokk dafa dox diggante. moo tax affaire Modou Modou dañu ko génnee ci combat bi su ma doon bëreeg Siteu du tee ñooy nekk bu leneen amoon tamit Modou bu doon bëreeg suma beneen mbokk mi du tee maa moom mu ñooy nekk lu ay du ay du ay ay ay mbokk ay xarit ñu dina yàlla moo ñu boole ñuy ànd xam loo xamante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 dara dara daal dara dara yéexul daal waaw di loolu yàgg yàgg yàgg dama yàpp ne euh, le premier yàlla dina ma may ndam quoi incha allahu rabbi waaw man loolu laa gëm ko bokk ngeen ñaari adversaire yéen ñaar. Mhm. kenn ki euh, da nga moom mu ñëw daan ko muy digganteem ak euh, sa diggante ak sos. waaw da daan sos deux fois moom mu ñëw kawoote sos. Mhm. nga daje ak booy sëy mhm. daan booy sëy moom mu daje ak ki nga xamante ne mooy booy sëy booy sëy daan ko.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 waaw. waaw dafa diis de. ndax yaa ngi liggéey macha allah lu ñuy xaar ci la première ci Papa Sow ndax la na li nga am lépp moo la ko yaakaar rek ku nekk da ngay yaakaar xam nga ndaw moom bu entraîné moom ba yóbbu xam day yaakaar ne moo man ñëpp moo man lépp moo xam lépp man nag maa ngi si ma ay encadrement ñu may teg ci yoon lu ma xalaat lu ma xelal jour boobu loolu laay def incha allah bi non waxuma loolu de moom moo ne moom moo ne maa ko dàq bëri maa ko dàq xeex incha allahu rabbi incha allahu rabbi si kàttanu yàlla incha allah loolu laa gëm loolu laay doxee ah ci subhanallah si yàlla rek laa ko teg teg ko fenn delloo jaar dañu seetlu bu mel ne sa combat Lac loolu laa la loolu wax léegi xam nga entraînement moom da nga naan euh, pare naa mentalement je suis prêt da ngay mooy entraîné nga ba pare mais moral moo ëpp lépp te tey jii euh, yàlla boole ma ak ñoo xamante ni moralement je suis bien waaw je suis bien moralement combat bi dina ute si ak combat yi fi doon jaar incha allahu rabbi si kàttanu yàlla. waaw papa gis nañ ñi sanc écurie yi ñëpp tamit ñu ci mel ne ay ñoom dijee wala ñi nekkoon ci yenn écurie yi ba pare wujju ci yeneen dañu am victoire est-ce que Papa Sow fee na ci loolu tamit ndax bari na ci loolu ah alhamdulilah yàlla na yàlla demee noonu rek yàlla nañu yàlla ubbeeg ndam ak ndam lu rëy rëy rëy rëy incha allah rabbi loolu ñaan yàlla ah seen affiche point com ok pay-per-view lay daw seen affiche point com ah waaw kon bu na ko ñëpp gaaw jënd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 Euh, Gofay ah ku lim daal di nga juum képp koo xamante ni daal yow yaa ngi ci affaire rek ñu ngi lay woo di woo tamit président ASC yëpp zone 8B zone 8 mooy grand maa ngi woo ñëpp président ASC yi di woo ñaari yëpp leen wax ni daal ñun ñu ngi seen ginnaaw di woo suñu Parcelles Assainies yëpp di leen jaajëfal. promoteur bi loo koy wax ak supporter say supporter moo xam supporteru Cité la nga lancé ci benn message parce que temps am na lu ñu gis te itam liy raam ci ñaag bi la jëm bu fekkee mën nga cee wax. waaw ku ne xam ne làmb demoon na ba sooxee ku ne xam ne làmb demoon na ba sooxe te ñun ñëpp amuñ lu dul làmb amuñ lu dul làmb na gars yi ñëw rek gën solo lu cher boo solo si da bañ sokku la taxal na gars yi civilisé rek ñëw gars yi seen làmb jàppale seen ay mbër looloo am solo quoi leneen amul solo waaw. waaw papa ñu ngi lay jaajëfal. waaw di jaajëfal ñëpp di jaajëfal sama waa écurie yëpp ah jaajëfal presse bi jaajëfal sama waa yëpp ah bàyyiwul kenn ku lim di nga juum ñu ngi big up ñëpp di waxal yàlla yàlla defal ñëpp jàmm jaajëf ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na Tapha Tine na Tapha Tine a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention KO Sa Thiès Boy Niang daan na